seen teewaay donc te ñuy ñuy organiser journée mon célébration journée lutte contre le paludisme journée mondiale bu ñu ci ñëwee ñun ñu ñu wax leen suñu liggéey fii ci Thiès lan ci lan la fan lañ ci toll ma waxoon léegi ne euh, xamoon ngeen ne sibiru avant am na fukki at ak juróom ci ginnaaw dafa nekkoon na feebar boo xam ne doon sonal nit ñi amul kenn koo xam ne doo doon toog benn at te defoo ñetti yoon ñeenti yoon sibiru boobu intervention yu bëri amul woon bés boo demee dispensaire wala nga dem ci poste de santé yi da ngay fekk ñu fees del koo ci laajte mun demaa sibiru loolu sax déggatoo ko léegi alors ci la ministère la santé jël initiative jël ay ay ay ay matukaay def ci ay moyens financiers yu bari ak ay jumtukaay ba nga xam ne fi ñu nekk nii boo ñëwee Thiès en tout cas ci ñi nga xam ne ñooy dem léegi hôpital di fa faju ci téeméeri nit ñoo jël kenn rek moo ci am sibiru donc maanaam lañ doon gis bu njëkk nit ñi ñëpp ñooy dem ci hôpital pratiquement moitié ba sibiru moo leen doon dal loolu amatul léegi boo jëlee ci téeméeri nit ñoo jël kenn moo ci am sibiru li tax ñu egsi foofu nag mooy d'abord Euh, dañoo euh, yee nit ñi ci li nga xam ne mooy indi sibiru muy yoo yoo mooy indi sibiru yooyu bu nekkee ne nawet bi ñëw na ndox mi doon taa euh, yooyu dañuy développé développé te puisque yooyu ñooy doomu jàngoro yi ku ñu màtt danañ ko jox jomb doomu jàngoro jooju collectivités locales yi béy ci seen waar maanaam lépp lu ñuy wax assainissement def ko loolu aussi mais agent de santé ak ministère la santé aussi def ci de seen waar mooy képp koo xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi bugg nañ booy tëdd nga tëdd ci ci ci moustiquaire imprégné nga tëdd ci guddi guddi ngay tëdd moustiquaire imprégné ci at bi yëpp comme ni ñu ko waxee te waa kër gi yëpp di tëdd ci moustiquaire imprégné loolu tey boo jëlee actuellement Thiès bu ñu jël kër goo boo jëlee téeméeri lal yoo gis juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk yi ak juróom-ñaar am nañu musique rembrayé mais li ñu bëgg mooy cent pour cent te peut-être sax li bëgg mooy temps yi danañu commencé li ñuy li ñu naan euh, euh, joxe moustiquaire lal bu ne ñu def sa moustiquaire campagne distribution de masse bëgg nañ fee joxe lu mot million nga moustiquaire ak ñetti téeméer million ak ñetti téeméeri moustiquaire donc loolu bu ñu ko defee boole ko aussi ak ñi nga xam ne léegi dañuy dem ci dañuy ñëw ci hôpitaux yi bu ñu ñëwee seen yaram tàng ñu mën leen defal test diagnostic rapide très rapidement ñu mën a xam ndax sibiru la du sibiru te bu dee sibiru jox leen garab te loolu aussi dama ko fàtte wax duñu ci fay dara parce que kii sibiru dafa gratuit buñu ci fay dara donc ñu am prise en charge bu baax loolu moo tax. boo jëlee ñi nga xam ne ñoo ciy loru pratiquement amatu ci subiru euh, en tout cas ci nga xam li ñu doon jox léegi trois mois yi mais bala ñu koo calculer waat déwén ñu dem ba ci euh, ba ba ci nawet bi ñëw parce que li ñu mënoon li ma leen doon wax léegi mooy mois de janvier ba février nga xam ne xool nañu ñun am nañu ay cas yu bëri yu pale yoo xam ne am nañu diagnostic positif fañ leen leen kenn ñàkk sa bakkan donc buñ ci bu ñu jógee loolu bu ñu jógee bu ñu jógee foofu nag ñu wax euh, ci journée mondiale bi journée mondiale bi daf dafay tax ñu gën a xamle ak ñin ñi euh, pa biiru te loolu mënuñ koo def aussi sans yéen ñi toog muy waa presse communication donc euh, loolu dañ ci def lu bëree bari parce que mënuñ toog rek ne ci phase d'élimination lañ nekk benn un pour cent population bi ñoo ko am mu ne nañ nañ toog non nañ toog non il ñu dem ba nga xam ne dañuy toog ba ànd bu ñu bu bu neex yàlla bien sûr ñu toog ba si biir dootul day day jeex ci euh, Sénégal gi mooy pré parce que élimination da dana jafe danga am ay cas par ci par là parce que mais nii bu ñu ko ko nen dañuy xam ne si biir pratiquement dootul dootul amate ren nag li ci bees mooy dañoo instruire pour que ñu liggéey ak inspection d'académie maanaam école yi donc muy Thiès muy ci yeneen région yi muy ci yeneen ci biir Thiès yeneen district yëpp def nañu ay leçons de vie dem ci école yi jàngal yu euh, luy paludisme comme ça ñoom it ñoom bu ñu demee li ñu leen jàngal ñu dem weccoo ko comité bi communauté bi mooy fi ñu dëkk mooy ñi ñu dëkkal seen yaay yeeg seen papa yi seen bàññen yi te loolu bu ñu ko defee foog naa sibiru bi kon dafay gën a wàññeeku donc loolu daal la amoon ci lu gàtt ci lu ma leen di wax ci euh, sibiru bi di ñaan yàlla mu gën ñoo kàttanal ba nga xam ne bu ñu defee peut-être fii ba ay deux mille vingt Sibiru dana disparaître fii Sénégal